bëgg ah ginnaaw la daanaka nga war a am. tuura. ñu ngi lay ziar wala. bi xam nga rek muy reggae. yow la kan d'abord nanka gis ngeen ñi ngi nanka mbokk yi yëkkati na sama loxo bi de moo bañoon nee na moom safara la démb moo ma wowoon di ma tëgg di wax lu ne di ma tëgg ñi ngi nanka gis ngeen fu mu mujjee ak man gis ngeen suñu borom yëkkati def na allahu bi de ah, def na allahu gis ngeen jinne bi def na allahu bi macha allah démb daf maa lu ne la wax <coughs> macha allah léegi na siggi ñu laaj ko. mbokk yi gis ngeen def na nii de moom moom jébbalu na moom. mbokk yi gis ngeen gis ngeen. numéro 16. waaw lu ne la wax jinne bi lu ne la wax ci guddi nee na moom moom mooy ninki nànka léegi nag moo def na nii kenn ku ne xamante ne lii mooy allahu allah macha allah waaw te moom nee na moom safara lay taxaw di bule gaa yi ñu dugg kii nag xam nga ne leer na ma ne kii génn na kii léegi moom génn na ci safara def na nii Hmm? maa la génne nee maa ko génne a ah, kii nag ku mag la ah. jinne bu mag ninki nànka yëkkatiwaat na sama loxo mbokk yi gis ngeen li macha allah fotol su ngeen li waaw kii ku jege woon iblis la moom jinne bi ku jege woon iblis la ku jege woon iblis la gis nga def na allahu bi def na allahu bi gis ngeen xam nga ne lii suñu borom rek moo ko mën gis ngeen sànq jinne wala kaana boobu xaw ma ana mu sax gis ngeen gis ngeen jinne ponkali sax duñ ma sonal ñoom gis nga maanaam jinne mbuujaay yi ñoo fi nekk di indi ay kurtu kar mais gis nga jinne ponkal yi duñ ma xam nañ ma mais jinne mbuujaay yi ñoo fi nekk di kii gis ngeen ko kii xam nga ne jinne bu tàng la jinne bu am doole la daf maa woo démb heure bi presque ay ay une ak nangam mu nekk di wax ma ne ko yow incha allahu dinaa la tuubal ki audio yaa fi léegi nag macha allahu mbokku julliti mbokku taalibe yi lii nag mooy allahu maanaam nañu dellu ci yàlla ah, dara neew fi lu dul yàlla kenn nekku fi ku suñu borom maanaam suñu borom mooy lépp mooy chef mooy champion suñu borom mooy lépp macha allah waaw kon nag nañu delloowaat suñu suñu bopp suñu borom xam-xam bi ma suñu borom jox nag. seede àlla kooku de isoli na ko waaw lu mu wax neen def na ni sama bët lu mu wax loo wax ci bët yi allah allah allah allah allahu allahu allahu allahu allahu allahu allahu allahu allahu allahu allahu allahu allahu allahu allahu allahu allahu sama gémmiñ jëm allahu moo ci ne allahu allahu allahu allahu allahu allahu allahu allahu allahu allahu allahu allahu allahu allahu allahu allahu macha allah allahu allahu allahu allahu allahu allahu allahu allahu ndeysaan allahu gis ngeen mbokk yi nee na sama lépp allahu la <laughs> sama làmmiñ sax allahu lañ ci bind <laughs> nee sama yëpp allahu waaw allahu allahu allahu allahu nooy du sax allahu allahu allahu allahu allahu allahu allahu allahu allahu allahu allahu allahu allahu jinne bu garaaw jinne bi nga xamante ne moom dafa ñuul kuk bëti xonk cur Ah. yow rek yaa am ninki nanka kenn amul ninki nanka yow yaa am ninki nanka suñ borom moo ne ma boo àndeek cerno ma jéggal la lépp loo ma sa def man ninki nanka yow yaa am ninki nanka kenn amul ninki nanka <laughs> yow rek yaa am ninki nanka mbokk yi te ngeen yaa am ninki nanka ku wax daa am ninki nanka waxul dëgg yow rek yaa am ninki nanka su ngeen jinne bi fu ma njëkkee ak moom fi ñu déparé ak fi ñu teeree ninki nanka mbokk yi kii jinne bu mag la ki nanka nee na bët yi dafa xonk cur yaram bi ñuul kuk moom nitu safara la moom dafa xeeñ xul moom lu bon rek lay def rey rek jaxase ay nit. léegi nag yow bës ni ki tey yow nii ki nanka nga wax ñu yow ci ko sama benn taalibe daf maa woo léegi mu ne ci coronavirus xaw ma n'est-ce mu ne ma laaj la ba xam lan nga xam ci loolu ndax feebar bi dafa bari léegi coronavirus moo ngi jóge ba Chine feebar boobu noonu defe naa dugg na itali dugg na sax Nigéria dégg na am na benn Nigérien bu ko am. léegi nag ñu bëgg a xam yéen lan ngeen xam ci loolu parce que yéen moom da ngeen garaaw. corona naka la c'est coronavirus ah. coronavirus ba xam xam nga ci dara wala xamoo ci dara. su ma benn taalibe macha allah mu ngi ñuy seetaan en direct léegi nag euh, moom jinne bi ma laaj ko ba xam feebar boobu noonu lu mu ci xam. coronavirus. waaw ndax feebar la bu tiital àdduna bi te dégg naa umra bi sax dañ koo tëja ah ngir feebar boobu xajj bi sax dégg naa gaa yaa ngi xool ba xam danañ dem ajji wala duñ ñu dem ajji te nag mënuñu ñàkk ajji màkka ah. waaw waaw mënuñu ñàkk dem màkka nag waaw lu garaaw la ndax feebar bi ay mbooloo lañuy ñuy bañ ñuy daje te màkka nag adduna bi yëpp ay daje c'est grave yaa am ninki nanka yow rek yow rek la yàlla may am nim ki bi nee man rek la suñu boroom may ma am ninki nanka nee na benn ninki nanka moo am muy na benn ninki nank moo am muy moom mbokk yi yàgg naa jàpp ay ninki nank nag xanaa ninki nank ak bi bokkul bokkul. ki nànk. Mm. bi waaw. fekkee na jamono yëpp. fekkee nga jamono yëpp. fekkee na jamono yëpp. bi salaahu salaam. fekkee naa yëpp ba may jotu ci àddina boobu yonente bi ñëwagul. ninki nànk bi nee na ba muy juddu ci àdduna boobu fekkee na yonente bi ñëwagul nee na fekkee na jamono ñu bari kii nag jinne bu mag la mu macha allah. kii nag moom it war nañu xamal lu bari. Soundiata Keita. ànd naag Soundiata Keita ah. ànd na maag yoro telanga. la moom ninki nanka. ninki nanka. Mm-hmm. nee na ànd naag Soundiata Keita. ànd naag yoro tenge la ndax nag ñi dañoo yàgg de. fekke naa jamono yëpp. fekkee ne jamono yëpp ni ci nànk bi kon kii ancien la musoo tuub nee na fekkee na jamono yépp waaye musul tuub mbokk ki wax bu rëy la wax de nee na fekkee na jamono ñëpp waaye musul tuub <laughs> nee na man maa tax mu tuub tey la xalif général fekkee na jamono yonente bi tuubul fekkee na jamono sëriñ su baax si tuubul fekk na jamonoy wali wi menn man di jaam bu gën a xeebu ci jaamu yi mooy Thierno Moule Sow le roi médecine traditionnelle di monde le king of the king ku suñu borom bëgg jinne bi nee na ku suñu borom bëgg moom mooy wax de jinne la wax jinney wax ku weddi ne man maay wax nga woo ma ma ñëw na ku weddi moom mooy wax nga woo ko mu ñëw yow de xanaa kenn du la woon ak yow <laughs> yow ko la woo du baax. Ah? nii. gis ngeen nu mu ñaqee gis ngeen xale bu jigéen bi melul nii il est sérieux dafa teey waaye gis nga jinne bi buñ déclenché ci moom day nekk beneen nit. mu dégagé moom nag day capturer ay jinne jinne yu bari dañ koy moom maamam dafa yoroon ay jinne dafa daan faj yooyu waaw mbokk yi. jinne mag yëpp dina ñëw mbokk yi. ñu gën a soxor. dina ñëw. dinañ jinne yi gën a bon dina ñëw jinne yi soxor yëpp dinañ ñëw. safara bareetul ay candidat. dégg nga loolu. nee na man maa tax safara bëreetul ay candidat mbokk yi liggéey bu may def liggéey bu rëy la de tuubal ay jinne tuubal ay nit dugal leen ci diine lislaam lu ko gën a for amul de jaamu yàlla bu gën a for li may def amul de amul de lu leer laa leen wax tuubal jinne amul lu ko gën a foor ci àdduna doomu aadama koo def dégg ñoom li ñuy def doomu aadama doomu aadama ñemew koo def mbokku yi jamono bi koy ak jamono bi koy tuubal mbokku jullit yi parce que ni la jinne bu soxor démb dafa ma woo téléphone di wax di saaga moom rek la mënoon a jaar démb dafa ma woo di saaga moom ni ki nànka nga suñu borom moo mën a maye suñu borom am doole suñu borom mooy boromu kàttan waaw waaw ni ki nànk gis ngeen ko jinne bi yéen gis ngeen sànq nu mu doon def ak man fii di wax léegi nag yow li nga def sa àdduna bari na xam naa ne ah. bari def lu baax. musoo def lu baax yow musoo def lu baax. musuma def lu baax. yow ban melukaan nga yor ni <laughs> ni ma mel sax dafa ëpp. nee na moom nu mu mel dafa ëpp moom Ninki Nanka. may nekk jaan bi nga xam ni. su ma lëmasoo nit ki bu ma ko moddee. meew mi njëkk a nàmp ci weenu yaayam da koy toqal. astafurla te ngeen lu wax. nee na dafa bari doole nee na bu lëmasoo nit bu fuddoo meew bu nit ki njëkk nàmp ci yaayam. <laughs> xam nga ne kii c'est grave. ah. mais moom njëkk a nàmp. da koy wàcc première mbugalam. nee na meew bu mu njëkk a nàmp ci yaayam daf koy wàcc. il est grave. kii il il puissance. dafa am kattan. moom ni ki nanka waaye gis nga fu mu mujjee man la xalif général des jinne suñu borom moom am kattan suñu borom moo am doole moom ma dooleel man Thierno Moule Sow la xalif général des jinne léegi ngi nanka korona euh, xawma ma lan nga xam ci loolu feebar bu xew feebar bu rey chinois yi lan nga ci xam ñëw fi ah ñëw fi ah na feebar bi ñëw fi waaye nag bu gars yi tëjul frontière yi dina ñëw ah parce que dugg na ñëw gu fi est-ce que feebar boobu noonu am na solution coronavirus am na solution. Ah? dina am dina am. waaw nee na coronavirus naka la. coronavirus nee na solution dina am. waaw nee na solution dina am. am <laughs> bi nee na feebar bi dina am solution léegi nag ñun dinañ ah. ñaan mu def ñaan. dafal nga sànni ko ci àddina bi yëpp. suñ borom nangul la ko. so. waa jinne bi nee na ma def ñaan sànni ko ci àdduna bi yépp suñu boroom nangul ma ko. àddina bi yëpp laa ko boole. suñ boroom nangul la ko ñu tasaareel la ko ñëpp mucc. dégg nga lu wax nee na ma def ñaan ci àdduna bi yëpp suñu borom nangul ma ko ndax nag suñu am na mu ruus. ah. jamono. nee na maay borom jamono wax nga dëgg de suñu borom nag am na ñu ruus ku mel ni man. su toogee ñaan si yàlla suñu borom yàlla dana dana nangu parce que li may def suñu borom moo ngi kontaan bu baax xolam a ngi sedd. sànni ko ci àdduna bi ne ko suñu borom réew yëpp laa ko boole. nga yabal ñu ñun ñëpp ñu tasaare ko. léegi ñu xam virus bi. léegi nag dinaa ñaan incha allahu tas ko ci àdduna bi yëpp. ngir ñu xam virus bi mën a xam virus bi. virus bi sax bëgg naa jinne yi ñu xamee ko fii senegal fii ñu xamee ko fi mbokk yi parce que nag dafa jaaxal àdduna bi instant bi dugg na itali am na ñu dee xaw ma ñaata ñoo dee lañ ma wax ah sànq waxoon nañ ma de am na ñu bëri ñu dee itali ah, dugg am na dugg na Nigéria kon nag mbokku julliti mbokku taalibe yi dinañ toog ñaan suñ borom ngir feebar bi parce que xam nañ ne suñ ñaanee yàlla nangu. ñun xam nañ loolu xam nañ suñu gémmiñ am na barke ndax macha allah suñu gémmiñ bi dafa sell set suñu gémmiñ bi dafa sell set du wax lu ñaaw du def lu ñaaw gémmiñ bi gémmiñ bu set la sell waaw jaamu yàlla rek du def lu bon de du def lu bon doo def lu bon ah. jinne bi nee na du def lu bon ñun du ñu def lu bon seedaal la lépp dañuy jaamu suñu borom suñu toogee nag jàkkaarloog suñu borom ñaan ko suñu borom dina ko def ndax nag suñu borom am na ñu muy rus waaw kon mbokk jullit yi gis ngeen feebar bi nag dafa jaaxal ñu bari ah waaw waaye nag dinañ ci ñaan daana ñaan ci bu baax a baax yàlla def ci ndox mu sedd ci suñu borom incha allah léegi nag gis ngeen jinne bi jinne bu garaaw la ninki nanka yow sa tur dëgg naka la noo tudd dëgg-dëgg. Ninki Nanka. Ninki Nanka noonu ah? dama am doole. soxor. waaw ba ñu may wax Ninki Nanka su may dox di yëngu. nee na dafa am doole dafa soxor ba buy dox day yëngu. ah. dem sa géej nga taxaw fa. nga ñaan nga ñaan ñaanal bu baax ñaanal bu baax cernu taxawal ci géej gi nga ñaan nga taxaw ñaan sa boroom balaa bii balaa la de li nga ma laaj léegi coronavirus balaa la balaa de booy ñaan dangay dem ba sa géej ga nga taxaw nga ñaan ñaay ñaan di nga ñaan bay lox nga wax suñ borom mu yemale fi jàngoro ji te mu jox leen li koy faj macha ñaanal de Thierno incha allah dina metti de hmm. waaw de ngeen mu ne ñu ñaan waaw dinañ dem ñaanal bul xaar dinañ dem géej ñu ñaan xaar taxaw dinañ dem géej ñu ñaan suñ boroom suñu borom yemale feebar bi yàlla parce que nag ah coronavirus nag moom dugg na Nigéria Nigéria ak Sénégal benn la sorante wuñu léegi nag moom dinañ dem géej taxaw ñaan suñ borom ñaan suñu borom ci kàttan suñu suñu borom ñaan yàlla yemale feebar bi yàlla may ñu solution pour ñu mën a am euh, maanaam ñu mën a am garab bi ñu mën a am saafara si ah waaw macha allah kon vraiment euh, di sant yàlla bu baax di julli ci yonent bi ndax jullit ñaan la te suñu borom am na ñi nga xamante ne bu ñu ñaanee suñu borom day nangu ñaan bi da koy def mégatement suñu borom kenn du ko poñe waaye dañ koy imposer te suñu borom dafa am ay xarit dafa am ñi nga xamante ne daf leen ruus daf leen ruus carrément bu ñu waxee rek lu mu jàppoon da koy bàyyi lu mu mën da koy def kon nag di sant yàlla bu baax di julli ci yonent bi sallallahu alayhi léegi nag yow mbokk yi jinne baa bind de moo ngi bind jinne baa ngi bind de muy bind ay alxuraan gis ngeen moo ngi bind moo ngi def ay ay mbir ci xale bu jigéen bi gis ngeen xam nga ñoom xam nañ yàlla xam nañ yonente bi waaye dañoo kàccooroon rek ndax kenn ku ne xam na ne iblis dafa liggéeyloon suñu borom def ko jege woon liggéeyal ko waaye lu suñu borom bind maam aadama ne ko iblis kaay su jotal maam aadama iblis bañ iblis rëy réeroog suñ borom suñu borom tong ko foofu waaye ñoom xam nañ yàlla bu baax a baax xam nañ kooraa xam nañ lu suñu borom wax waaye dañoo lank waaw dañoo lank mbokk yi waaw dañoo lànk waaw parce que dañoo rëy dafa rëy iblis xam na lépp kooraa bi xam na lépp parce que dafa doon jaamu yàlla jaamukatu yàlla la woon waaw xam na lépp maanaam dañoo xam ba pare toog ci waaw dañoo xam ba pare toog ci moo tax dañuy grave maanaam dañuy dangereux waaw léegi nag gis ngeen ko jinne baa ngi bind gis ngeen jinne baa ngi bind ci biir bi moo ngi def ay affaire moo ngi bind gis ngeen moo ngi bind gis ngeen jinne baa ngi bind moo ngi def ay mbir gis ngeen c'est grave fii nag kër Thierno Moule rek ngay gisee lii lii moom ñun miin nañ ko ci néeg ba xam nañ lii xam nañ lii nii yëpp muy def ni macha allah parfois dañuy wéetoog jinne yi xam nañ lépp macha allah waaw c'est grave waaw. chimère la pare nga ah waaw léegi nag ninki nanka pare na léegi yow bés ni ki tey léegi nekk nga ci dugg nga ci lislaam lépp lu bon bàyyi nga ko léegi lu baax rek ngay def waxal <laughs> kon gis ngeen jinne bi ninki nanka yow xanaa da ngaa jàng arab dégg loolu jinne bi wax na mais mu ne bu ñu wax loolu waa léegi nag euh, ñun xam nañ yëpp macha allah léegi kon ñu tuubal jinne bi bu ñu ko tuubalee euh, moom ninki nanka jinne bi nga xamante ne dafa jegewoon woon iblis bët maanaam doonoon ninki nanka bëtam yi doon xal xonk cur yaram bi ñuul ku mu nekk jinne bu doy waar bi nga xamante ne day jàpp rek bu lay dugal safara kooku nag tey moo wàcc tuub nekk ngir nekk suma taalibe ngir ànd ak man ma liggéeyal yàlla ak bi jinne baa ngi noonu kon nag ma daal di lay tuubal benn yoon waaw léegi waxal ashhadu an laa ilaha illa iblis la woon nga dafa kale woon fi vrai iblis la woon ashhadu an laa ilaha illa allah su ngeen vrai pire iblis la woon ashhadu an laa ilaha illa allah ñaanal ma si ndox jox ma ñaanal ma si ndox jox ma ñaanal ma si ndox mbokk yi xam nga ne vrai vrai vrai iblis noonu lay demee vrai iblis noonu lay demee pour mu wax baatu seede yi day metti day diis pour mu wax baatu seede yi day diis c'est grave mbokk julliti mbokku taalibe yi si ngeen liggéey bi dafa metti bismillahi rahmaani rahim macha allah ban heure moo jot. deux heures dix-sept ci guddi ñoo ngi ci deux heures dix-sept mbokk yi foog ngeen xam fuñ toll jamono ji actuellement nii ñoo ngi ci deux heures dix-sept ci guddi waaw léegi trois heures du matin jot ñoo ngi ci deux heures dix-sept le xalif général moo ngi fii ak jinne bi nga xamante ne moom la ñu wax ninki nanka le ninki nanka ngi nii nag kii moom du ninki nànka poupée kii vrai la macha allah kon la ninki nànkaa ngi nii macha allah léegi euh, ninki nànka waxal ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu an laa ilaha wa ashhadu anna muhammadan rasulullah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah wa rasuluhu abduhu wa rasuluhu tuub naa. dugg naa ci diine lislaam. dugg naa ci diine lislaam. kon alhamdulilah rabbil alamin le grand Ninki Nanka le maanaam ki gën a jege iblis ki nga xamante ne day bind di jox iblis iblis bu mag bi day bind di joxe iblis iblis di bind di ko jox kooku tey moo tuub fii sama kër. defe naa premier ambassadeur moo ngi fi deuxième a ngi fi troisième a ngi fi quatrième a ngi fi kii nag mooy Ninki Nanka kii. moo sës ci iblis waaw kon nag bés ni ki tey moom ninki nanka bës ni ki tey tuub na dugg na ci diine lislaam kan moo ko tuubal Thierno Moule Sow la xalif général des jinne kon bu bul dem kay bul dem léegi kay yow yow da ngaa jege woon iblis iblis da koo jege woon dama jege iblis dafa kontaan ci man ndax lu ne laa ko doon doxal. lan doon doxal c'est important ñu xam. yu bon yu mbëgg yépp maa ko doon doxal. di jaxase nit ñi ñuy rayante. di rayante. su ma jógee indi deret jiw day ree day ree day ree ba def nii def def nii mu jaayo ma jaayo mu jaayo ma jaayu ma jaayu. lan moo tax Guinée Conakry chaque jour deret bi du tuur Guinée Conakry xam nga ci dara wala xamoo ci dara. fépp la ñuy war ci monde bi. waaw fépp nga lan moo tax président bi Alpha Condé mënul bàyyi dëkk bi lan moo tax deret di tuuru Guinée Conakry ninki nank xam nga ci dara walla xamoo ci dara ah?

fépp fépp nii rek laay def nii rek laay def di buusu sama safara si muy wër nit ñi seen xol yi di jëf jëfi di tàkk ñuy xuloo di reyante seen lu ne def lu ne def naa ko lu ne def naa ko lu ne def naa ko lu ne def naa ko mbaar Sénégal fii def nga fi dara lan nga fi gën a def lu rëy ci Sénégal ci sa wàcc bu gën a garaaw maanaam loo fi def lu gën a garaaw. daa am protection. ah tas sëy. ah dinaa tas sëy. di yable ñu may tasal sëy man du ma ñëw de. Ah, damay yable ñu may tasal sëy. Ah, di yable ah. nit ñi di xeex. di rayante. ma leen di xirtal ci géej gi. ñuy <laughs> dee ku dugg boo dee ma sànni safara sànni ñoo xaru ñoo xaru ñoo xaru lu tax ñu fiy dugg ñoo xaru ñoo xaru ma sànni leen biir safara man mii la man defee ñu kontaan ñu kontaan ñu def nii yéen xam ngeen ci affaire faramason dara walla yéen xamoo leen ci dara. def ni faramason yëpp ñuy wër. Ah. faramason yëpp ñuy wër. ñuy wër ñuy wër ñu leen di yabalal. ay jinne shayaati ay yéefër comme ñun ni ñu doonoon ay yéefër comme man li ma doonoon ah. ñu leen di liggéeyal waaye ñoom ñépp safara safara safara safara safara yaa leen jaaxal de yaa leen jaaxal de yaa leen jaaxal yaa leen jaaxal de yaa leen jaaxal mbokk yi dégg nga loolu duñ la gis duñ la gis ay bant rek lañuy gis ay bant ay bant ay bant ay bant ay bant rek gis duñ gis dara yow nii la sa borom di def nii la sa borom di def nii rek nii rek nii rek duñ gis dara duñ gis dara duñ gis dara duñ ah? sax mënuñu laa gis nee na ñoom sax mënuñu ma gis gis dara yow bu ma gis de gars yi dañ may jógal duñ ma gis <laughs> la xalif général day jinne da ngay jóg ci man doo gis maanaam day mel ni tere xam nga boo taalee tere mu giree ñuul ku man ku ma jógal doo ma gis la xalif général day jinne maanaam courant bi mooy coupé moo naan takk doo doo xam xam nga boo gisul fi nga jëm doo mën a egsi ah? fonk leen cerno fonk fonk leen no fonk leen no fonk leen no yàlla leen ko indil fonk leen cerno buñ ko yóbbu woon feneen du ngeen si jot de du ngeen si jot du ngeen si jot nit ñi ñàkk nañ jom nit ñi ñàkk nañ jom nit ñi ñàkk nañ jom nit ñi ñàkk nañ jom jàpp leen ko jàpp leen ko respecté leen ko bu leen taxee suñ boroom mer ba indi fi mbugalam di jooy fonkal leen ko ko respecté leen ko respecté leen ko respecté leen ko mbokk yi gis ngeen jinne bi ko respecté leen ko respecté leen ko respecté leen ko respecté leen yi gis ngeen jinne bi lu moo ngi wax bay jooy bay tuur xéewal mu ne respecté leen Thierno léegi nag dañu bëgg a xam lu tax mu wax loolu ah dama rëccu dama rëccu ah? dama rëccu <laughs> jinne bi nee na dafa rëccu ndeysaan dafa doon def lu bon def lu ñaaw nee na rëccu na ninki nanka moo ngi jooy mbokk yi